asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di wax ni ñun waa JPR bu MPR en marche pour la renaissance du Sénégal te ki ko jiite di la président Hamid Thiaw ñoo bëggoon indi ay leeral ci géewu politique bu Sénégal gis nañ ay candidats yoo xamante ne dañuy utiliser ay slogan yoo xamante ne ci seeni campagne moomuñu ko ñu bëggoon artu kii nga xamante ne moom mooy candidat bii di Anta Babacar Sy slogan bi nga xamante ne mi ngi koy utiliser te moomu ko di la relève parti bii di MPR moo ko mille depuis 2021 di rappeler juste bi muy def ah, bi muy lancé mouvement am invité woon na kii di la président Hamidou Thiaw si mbaaxam comme mënul woon dem si la yabalee kii di secretaire général bu parti MPR pour mu dem teewal ko fa bi mu demee gis nañuy utiliser li nga xamante ne moom mooy la relève mu avertir leen xamal leen ni loolu ñu ñoo ko moom mais ñun ñi waa JPR gis nañ ne depuis lors bàyyiwu ko mi ngi continuer di ko utiliser Sénégal nag nee nañ kéwal du tëb doom ja bëtt tey su defee lii duñu bett ndax gis nañ papaam ak histoire u Ndingler donc ñu ngi koy artu ñun waa JPR di ko xamal ne lépp loo xamante ne gis na ko ñun la feeg bàyyiwul li nga xamante ne moom mooy suñu slogan di la relève jërë ngeen jëf